ñu demaat ba ci biir un euh, médecin assermenté koo xamante ne tey jii dafa jël temps def euh, médecine faculté des médecines. Mm-hmm. minimum huit ans def spécialisation koo xamante ne bi jaaw na jur na ay doom yu mag Adji Sarr mm-hmm. léegi si tey jii dafa def liggéeyam kese ñu ne ko changer sa version changer ñun ñu jox la lii nga bañ ñu lay xokkotal di mbëkk sa oto. di di di di di di la di la menacer ay menace de mort. di jël say téléphone di pour pour rek xool li sa nekk je sais xam nga loolu c'est trop quoi. Mhm. c'est trop ci naka. par exemple tey jii kan moo nekk en sécurité kan moo nekkul en sécurité lu dal médecin boobu ndax dëgg ndax liggéeyam est-ce tamit suba man man mënul dal par exemple jaar mi toog man wala man mi toog man c'est ça la question en fait parce que tey man ñun mënuñoo comprendre tey ku nekk sa liggéey sa liggéey normal de laa la wax de après ñu par exemple defoo lu ñu bëgg. soit dañ lay xoxotal ba yow mi sa jëmi bopp nga dem ba nga ne man sama vie mu ngi en danger ba tey sénégalais yi ñu seen responsabilité taxu ne eh les gens arrêté di ngeen def dafa en tout cas maa ngi koy naqaru lu ko dal nii trop. Uh-huh. di naqaru aussi euh, ces gendarmes là te di wax sénégalais aussi nañ yeewu bu baax xool ngir yàlla wa rasulullah lu ñuy def xool aussi lu ñuy gëm ak lu ñuy dugal seen bopp parce que tey jii amaana réew mi su yàqoo wala réew mi su jagee. ñun ci suñu loxo la nekk. Mm-hmm. ñii mag yi dañuy dem ñun ndaw ñun ñoo ci des kon nañ ko xeex n'ayez pas peur parce que tey jii heure xeex moo jot suñu xeexul it il faut nous écraser jaar suñu kaw il faut gouverner éternellement. d' accord ba tey dañuy des ci dossier bi balaa ñuy jàll ci beneen point. Mm-hmm. mu jamono ji déglu nañu daanaka ñi ñi xaw laale ak dossier bi yëpp. Mm-hmm. madame Tall Ndeye Khady Ndiaye Adji Sarr. non non dégluwuñu ñu laale ci dossier bi yëpp de. dégloo gun ñi ñi nga xamante ni jàpp nañ ñi ñoom seen loxo laal bu desee it ñi ci des bareetul déglu nañ madame Tall mu nekkoon ex patronne ki nga xamante ni mooy euh, Ndeye euh, Adji Sarr Ndeye mm-hmm. Khady Ndiaye aussi déglu nañ ko nekkoon mm-hmm. patronne Sweet Beauté euh, déglu nañu confrontation dox na ci Adji Sarr Ousmane Sonko. MC mm-hmm. Niass dem na mu ngeen a des na xam naa ay Mamour Diallo lay des ak ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ciy tudd ci mel ay mettam jox jaaj jamono juñ toll nii. ak ñi ñu jot a dégloo guut yëpp. ban jàngat nga am ci dossier bi ci anam bu muy doxee. mooy li ma lay wax boo xamante ne au début dañoo ne dañoo euh, violé ab benn jig xale bu jigéen. Mhm. xale bu jigéen bi ku koy viole moom dafa yoroon ñaari arme léegi arme yi mu yoroon da ko da ko doon menacé menace de mort pour tëddee ko. Mhm. léegi xale bu jigéen bi nangu parce que dañ ko dañ ko doon menacé léegi viol am léegi viol boobu lan moo koy firndeel mooy par exemple certificat médical. Mhm. bu ñu demee première chose nee nañ certificat médical bi kat dafa ne ah lii de kii de viol amu fi kii violé wuñ ko ndaw si violé wuñ ko bi ci boppam. génnaat sax nee na carrément man ki ma consulté amul benn état de perturbation niroo ko xamante dañ ko violé deuxième chose mooy borom salon bi taxaw ne ndaw si waxul dëgg parce que wax na ma lii wax na ma lii wax na ma lii bien avant la même la demoiselle enceinte de vingt deux vingt deux mois moom mu ngi naan encore par exemple tey jii man damaa ëmb ci kër diw demaat ba ci biir moom ndaw soosu de moom mu ne moom ëmbut da doon wax yi wala avocat am ne ëmbut da doon wax c'est-à-dire les choses maanaam ci ci témoins yi ba ci seen biir sax eux-mêmes ils déchargent euh, kii comment dirais-je ils déchargent euh, Ousmane Sonko. ñu déchargent ci naka waaye soo xoolee euh, Ndeye yi moom lu mu wax leer na nañ jëkkëru Ndeye Khady lu mu wax leer na nañ euh, les masseuses ñoo xamante ne ñoo nekkoon ak aji même ci biir boîte bi lu ñu wax nee nañ boo ah ajikat waxul dëkk mm-hmm. lu muy wax ne am na fa amu fa. madame Tall madame Tall euh, nee na aartu na ko surtout. su nekkee sax parce que maanaam taal ëmb bi moo ko dugal. su nekkee yow da ngaa ëmb. jarul ngay dem seeti ay gouvernement xaw ma ay Macky la ay autres. mais war nga mën a toog ñu réglé ko nañu woo sa mag. maanaam taal yooyu dafa woo Macky Aji Sarr Macky Aji Sarr ne ko moom yëgut te aji pourtant moom moo ko wax ne par exemple man lii la euh, man ak sama mag bi sax. jéem nañu àgg si Ousmane Sonko mais Ousmane ko dafa bañ. tu vois léegi si soo dee soo soo soo génnee ñooñu ñëpp. mu dee par exemple MC mooy lan audio yi ñuy waxante tamit ça trace euh, pour Sonko capitaine Touré man dégluwuma euh, audition am xawma lu ci nekk mais normalement. lu ma waxoon taxawoon ba tey foofu la taxaw fu mu taxawoon ba tey foofu la taxaw. Mhm. kon donc déjà kooku xam nga tey jii lu ma waxoon au début leer na. Mhm. ne kat ah kii moom yaakaaruma dañ koo sàkku ndax lan man mii ko doon enquête lii ak lii la ma wax. Mhm. comportement bi la indi ak man léegi ñëpp instant bi ñëpp contre une seule personne léegi. ana crédibilité te pourtant ñi wax yëpp wax ñëpp de kenn changé wu ci version même chose ñuy wax. benn nit mooy wax naan man dama doon fen dama doon piégé dama doon kaf dama doon reetaan. mais quand même am na ay preuve nee na yow xamante ni ba mu jàkkaarloog juge bi indiwu ko. ay nee na ba tey dafay xaar li nga xamante ni mooy procès bi. lu tax léegi xam nga xam nga tey jii yabaate weesuwul nga ne man am naa ay preuve mais procès rek laay xaar lan lañu jublu ci procès boobu. lan lañu jublu exactement ci procès dafa am lu ñu bëgg ci procès bi man ci loolu laa loolu laa xalaat comme lan tey jii amaana essayer parce mënuñ ko essayer de ternir l'image de Ousmane Sonko egg na ci moom eggul ci ñoom comme ñun ñàkk fay la ñu ci bëri mhm. ñu koy waxee naan non egg na ci ñoom def na ko lii alors que la personne concernée même moom a avoué que fan ak tilimal ko ci kanam ñëpp moo leen tax parce que mënuñ ko mhm. xam nga moo tax ma ne mënuñ ko tey jii Ousmane Sonko yàlla seetal na ko ba pare yàlla naka la ko setalee mooy li ma la wax sànq procédure bi ma la wax tout à l'heure mooy lan depuis le début laa la wax de ñëpp ñoo xamante ne melewu nañ ci dossier bi. laa la wax ñëpp ñëpp ñi ci melewu ba tey ils sont aji Adji Sarr et euh, Ousmane la ñuy décharger. kon donc tey jii man nañu wax ne tey euh, aji Sarr moom kese elle est seule ci ci ci ci combat am moom elle mooy même nit koo xamante ne ak ak asafula ak ak ñu koy ruux ci suuf ñu koy jox xaar ñu koy jàppale. ñoom ñoom ñoo ànd maintenant ñëpp ñoo xam ne dossier bi concerne na leen seetal nañ Ousmane Sonko. kon donc laa laa laa on peut pas dire que am nañ ñu ciy risqué tey jii am nañ lu mu mën a yàq ci deram parce que lépp lu mu mënti wax instant bi nii au contraire sénégalais dañu naan kii fenkat la. Hmm. parce que moom mooy wax mu a man damaa fen lii. nit yi waxuñ ko nit ñi diñu ko moom mooy wax par exemple piège yi mu ngi bëgg a bëri ëmb bi maître El Hadj Diouf na woon. piège la woon l'autre l'autre là. Euh, Gabriel Kane. Gabriel Kane moom loolu dafa weddi woon kaaw Gabriel Kane ne ay rëfa rëcc ak ay ñoom dañ ko weddi woon te dèjà demaat nañ ba ci biir Gabriel Kane avoué loolu tey jii Gabriel Kane mu ngi nii nee na muy bàyyi na ko fi dem na yoonam ah mais est am ay soxla yu ñu doxi quand même. na doxi soxla mi lu tax léegi moment yi affaire yi la ñëw ci soxla bi. soxla yi na nekk dafa daje rek. li ñu naan tombé waral ay benn affaire gis nga dossier bi ñu ñàkk jom dëkk ñoo ciy des. ñoo xamante ne da nga jàpp ne Gabrielle Kane instant bi dafa daw. non jàpp ma ne dafa daw peut-être dina revenir elle va revenir peut-être. Mm-hmm. elle revenir peut mais moment bu mu demee nii est-ce bi la waroon demee moment boo xamante ne affaire dem na bum su nekkee gëm na lu muy wax gëm na ne am na yaakaar ne man li may wax ni dëgg dëgg laay xeex tii laa koy xel mais moment yi ko ndaw si gën a soxla ci la dem. Mm-hmm. parce que la fii laa yow tey jii ku ko gis dina xam ne kii wax naan carrément man ñi may kuloo kuloo nii lañ mel. di tudd ay kàddu sax bëgg bëggatuma ci jaar di tudd di jaar fu bon ci ñoom. Hmm. imagine koo xamante ne yow tey yow yaay wax noonu say avocat ak ñeneen ñi nga naan leen jël nañ xaalis lekk nañ xaalis li ma nekk si faux après yow nga retourné yow nga ne di nga nekk jàmm psychologiquement elle ne va te moom du mos a am jàmm tant que toogul avoué. avoué boppam comme ni mu ko avoué ci audio yi ne man lii maa ko def. complot da ngay gis que ni euh, euh, preuve la euh, preuve bi mooy que ni. Mhm. confrontation bi doxoon ci digganteem ak Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko ba mu defee live am ci page Facebook am. Mhm. après ci suba gi gis nañ ko mu génn. mais mu mel ni dafa dëggal li nga xamante ni wala sax dafa weddi kàddu yi nga xamante ni Ousmane Sonko yëkkati woon na ko di wax que ni elle est nañ ko dimbali nañ ko ñaanal njëkk gis nga. déclaration bi nga xamante ni def na ko mu mel ni moom fi ko. non non moom mënu faa jóge parce que actuellement nii de di sagam ku ñëw sa sëriñu pap sa sëriñu waa kër yow sëriñ boo xamante ne yéen. Mm-hmm. sëriñ boobu yéen mooy yéen yéen a moom mooy seen kilifa léegi sëriñ boobu yow nga sañ taxaw wax ak moom ba pare nga ne sëriñ boobu da koy piéger da doon xool ndax sa sëriñ bi est digne de confiance xam nga ne kooku tey jii euh, su tasee ak Ousmane Sonko kese kese lu ko neex lay def wala lu ko neex lay wax. d'accord Adji ci boppam xam nga lan mooy problème bi. moom amul lu muy bañ amul lu muy ite parce que instant bi nii dem na ba mu sës te ci ay fenam yooyu wala ci ay waxam lu dul dëgg yooyu walaay Azim laa la ko ci la complot bi di feeñ di gën a leer chaque fois parce que déjà elle pas communiquer en plus amul benn intelligence boo xamante ne genre yi mën na koo gérer c'est ça c'est ça le problème donc maanaam da ngaa jële benn nit fële da ngaa jële benn nit fële koo xamante xamaloo ko dara nga ne kaay ma ma joué la xanaa sax euh, théâtre soo koy joué. dañuy def ah, casting wut baaxul daal non non dañoo fuusee ci côté yëpp. dañoo fuusee ci côté yëpp parce que instant bi nii nii tey jii nit ku intelligent ay ay Mamour lii gënoon na na sax gën a gën a professionnel waroon mënoon nañ gën a gën a def ba moom mu gën a am impact que tey jii ay bassin suñu duggee nii. Mhm. imagine da nga maa violé arme yor sa lii yor sa lee après yow finalement lan nga mujjee nawaat digganteem yàlla ndax laal na ma wala laalu ma. quand même c'est exagéré. D'accord. ñu wax ci leneen lu soxal li nga xamante ne mooy motion de censure bi nga xamante ne doon nañ ko amal ci assemblée nationale mu mel ne nag euh, ñun ñii di waa Yewwi lañ ci bëggoon antuut mm-hmm. ginnaaw bi nga xamante ne voté nañu ko mu mel ne majorité bi waa nguur gi ñoo ko daal di am. Mm-hmm. ci loolee nag mu mel ne intercoalition bi doxoon ci diggante entre wàllu Sénégal ak Yewwi bi Wi jamono juñ toll nii. Mm-hmm. bu mooy tuut foofu lay lépp jàllee tabbi géej comme ni mu koy waxee noonu mu mel daal ñoom ñaari euh, kujje politique yooyu jamono juñ toll toll nii seen diggante réeroo am na ci bu baax a baax. Euh, yaakaaruma ne réeroo am na ci parce que euh, en écoutant euh, Birame Souleye yaakaar na ne moom def revenir na ci fee yi li xew. Mm-hmm. tey jii amaana waa wàllu waxoon nañ ne consulté wuñ leen wala yëgaluñ leen ko. Mm-hmm. moo tax ñoom ñu adopté seen position. Mm-hmm. man moom seen position déjà man dama leen koy nangul parce que